asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yow mi may seetaan te di ma déglu delsiwaat naa ak yow ci suñu beneen ndénkaane tey suñu ndénkaane dañuy yóbbu ci xadiisu Omar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu bi nga xamante ni al imaamul Buxaari ak imaam Muslim génne nañ ko muy xadiis bu ama am solo xadiis bu jullit bi war a bàyyi xel mooy xadiisu innama al amalu binniyaat yenent bi sallallahu alayhi wa mu ne jëf yépp moo ngi aju ci yéene jëf ju ci nekk la ci ca yéene loolee la la suñu borom wa taala di fay borom xam-xamu usul yi ci xadiis bii lañu ballaloo ne al umuru bi maqasidiha mbir daal seen jubluwaay lañuy xool doomu aadama bi muy def jëf ji ban jubluwaay la ca am jubluwaay boobee la ko yàlla di fay te loolu ñoo ko ballaloo ci xadis bi mbokk yi yéene bu ñu ko waxee lu ñuy dogu la ci xol waaye du lu làmmeñ di wax ndax daf ci am jaamu yàlla yi yoo xamante ni xol moo ko jagoo loolee yéene bokk na ci am jaamu yàlla yi yoo xamante ni làmmeñ moo ko jagoo am yoo xamante ni cër moo ko jagoo ci lislaam nag nit ki buy def ak jaamu yàlla du wax ne maa ngi fas ka yéene def jaamu yàlla sàngam déedéet jaamu yàlla googu da koy yéene mu nekk ci sa xol nga jug dem defi jaamu yàlla gi loolu moom moo tax léeg-léeg ngay dégg ay njuumte ci lenn ci doomi aadama ñuy taxawal julli naan fas yéene naa julli tusubaar ci bis sàngam ci dat sàngam loolu njuumte yéene du lu ñuy wax ci làmmeñ yéene dañ koy fas ci xol kon xadis la boo xamante ni xadis bu am am solo la ndax li tax mooy yéene mooy différencier diggante jaamu yàlla gi ak aada doomu aadamaa ngi nii jël na ndox dem sangu ji waaye sangu bi mu sangu da cee am tiyaabo parce que lu tax dafa yéene sangu farata yéene ji jaamu yàlla kële jël ndox dem sangu te amu ci tiyaabo lu tax mooy kee ba muy sangu dafa yéene moom tàngoor wi nekk ci yaramam rek na dañ na sedd loolu moom moo tax ñaari jaamu yàlla yi doon benn jaamu yàlla kee am tiyaabo kee amul tiyaabo allahu akbar noonee nga koy jëlee nag ci mboolem jaamu yàlla bépp jaamu yàlla boo xamante ni doomu aadama bi moo ngi koy def yéene ci jaamu yàlla jaamu yàlla googu da ci am yàlla subhaanahu wa taala loolu moom moo tax ci xadis bi yenent bi ne képp koo xamante ni gàddaayam jóge koo màkka dem medina li ko ko tax a def mooy yàlla ak yenent bi dana ca am yàlla ak yonentam waaye bu dee àddunaa ko tax a jóg wala jigéen ju mu takk loolee la cay am kon yéene mooy ràññet la diggante jaamu yàlla yi nit kabbar na di julli kële kabbar ci côtéem di julli te ñoom ñaar bokkuñ lu ñuy julli donte ne julli gi julli la waaye yéene ba moo différencier jaamu yàlla kee dafa yéene julli farata kee yéene julli naafile kon mboolee mi jëf rek xamal ne la koy ràññet le moom mooy yéene bi kon yéene lu ama am solo la ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala doomu aadama bi na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax nit génnee na sarax joxe ko am ca yoolu sarax waaye nit génnee na sarax joxe ko am ca yoolu azaka parce que lu tax bi muy joxe alal ji dafa yéene ne azaka lay génne kee moom sarax rek la yéene te ñaar yëpp joxe la kon yéene daal mooy li nga xamante ni moo tënk jaamu yàlla yi li nga yéene ci jaamu yàlla gi loolee la la suñu borom tabaraka wa taala di fay moo xam àdduna nga ci yéene moo xam gis leen ma nga ci yéene moo xam dégg leen ma nga ci yéene moo xam siiw nga ci yéene li nga yéene ci jaamu yàlla gi rek loolee la la yàlla di fay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu